ذكر كردي وجسدي ذكر كردي وجسدي أبرق رب العالمين مع العالمين والأمين والقلس ذو الأمين ذكر كردي العرش العظيم برب ما يا sa Thank you.

هم في خطابا كل ولا قديما لغدا هدى ولا يلهمهما هم ولا قديما بهذا الغتاب يغاد لي كل ما رموت رامنا ولا هرى قديما بهذا الغتاب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

وقلبك أولا وقلبك أواد وقلبك أراد عليكم يا سماوات سر من أبكي عليهم وقلبك عليهم إبان ما قدر على

الله Mudu Bamba ne na kaano ibaadu Maatul rahmu Wakana jaan Rabba Abmina أبين هدوم هدوم هدوم sëriñ Bamba nee na kaanu yoonu na bul dimba mu juree balaa ñëw babil mu jamba ana idaa dobi daa Thank you.

كالقيم ولما تقفوا المدى وفي جنوبنا نسل فلا ما ولا لا مضارا Seexal Bamba Bamari الله وبنى الله

سبحان الذي لا نكاح أين الأبائنا Thank you. I'm

bon bu nopp dégloo war na ko dégg eh, kon moo taxaw fii te yëkkati ba daaneel sama kàddu te sant ma leen kon loolu day mel ni ko fekkee ah,

Mountakha Mbacké sunu xalifa kooku moom junj la wala junj la junj junj la moom Mbacké sëriñ Saliou junj sëriñ Cheikh Mbow junj rek laa ciy naan ñun ñëpp laa ko sant junj ñun ñëpp junj junj sëriñ Cheikh Mbow yéen laa ko ñun ñun yéen waa Mbow Mbow ci ne ci ne war nga ko rajo foofu indi أشهد أن لا إله إلا الله وأن من يتبعه Thank you. maa la wax nii ah waaw ñu ngi ñëw de. gis nga gis nga jàkka boo ko jox xaalis ne xaw ma jëm ñu ngi ñëw de. Cheikh Sow de li ma jox sànq nañu sedd saa xol bu ma yoroon kàr jàkk fii laa ma daw waaye loolu ku ma yoroon kàr jàkk ay toogal borom boo yéen ñi taxaw ne ci ngeen bokk sang faal sa kër laa yaa jox ma addiya Sëñ Tuubaa na war ka bare nag dama naa invité añ suba sama kër ah. yow sang waaw ay jox bismillah moo xalaat dégg nga xam ngeen ni ma may leen benn wolofal ci asas bi hmm. waaw xaaral ak borom nga war ñoo ko su na barta bari na barta bari maa wax loolu de dangay jàll sama xarit maa ngi ah <laughs> daawoo wax dëgg borom Tuubaa sànq far xasaay waaye nag ci añ bu laa ko defee ko yow boobu defoon bi lépp boo ñëwee saa kër taxul nga dem incha allah maa jàlloon koy jiñ maa añ maa jàlloon koy jiñ te ma bàyyeeloo incha allah waaye kon borom moo wax gisaguma leen de ah mi ngi laaj parce que kon nee na moom man dafa mel ni cinq minutes. سير نيمان يا بغل يا بن تيجن كيمن بلين أمرا كواي أولم بلا كنقول أولم بلا يا بغل يا بن تيجن كيمن بلين أمرا كواي سير نيمان يا بغل بلين أمرا كواي أولم بلا كنقول أولم بلا يا بغل يا بن تيجن كيمن بلين أمرا كواي

Mama

ma ñi maangal bi ñoom Pape Diop waxtaan ak ñoom sëñ bi nag ay waxam noonu rek comme na ma leen ko waxal bu njëkk rek moo fi nekk moom nag nee na mi sant bu baax ci liggéey bi ñu weesu ñu àndal moom ci kër sëñ bi mu liggéey bu rafet bu liggéey boo xam si liggéey bu jafe la moom ba liggéey ba jeex gis ñu ci benn rëq kon loolu mu ngi leen ciy sant di leen gërëm ñu tàmbale ci président bi li Mbaye Ndiaye ba ci sëriñ Cheikh Sow ba ci euh, sëriñ Ousseynou Ndiaye ñoom ñi ak xale yi mu àndal ñëpp kon sëriñ bi nee mu ngi leen sant ci loolu di leen gërëm loolu gis na seen taxawaay démb ak bokki démb ànd ba mu ànd nag yéen démb ak bokki démb leen tey la ko gën a fedd li tey la ko gën a ko gën a jàpp te xam naa ci dara ndax léegi toog di waxtaan mu ma laaj nu ngeen di doxee ak li ngeen def ma di ko ma di muy doxee kon nee ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen ànd bii ngeen ànd fu mu bëgg mu yegg fa yéen a ko fay Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra Fall loolu nag lépp nekk ma nga caaj yéen tey li ko teewee dafa am yitte maa ngi moom nar na am sax waaye man tam tey li yitte damaa gàllankoor maa man sarax bu dem ca moo tax amuñu. bu ma ñëwee man leen kon lu gudd gudd ñaa dem teewal ko waaw ñu ngi leen sant nag di leen ñaanal lépp lu ngeen bëgg ci liggéey bii ngeen di sumb yàlla ko Serigne Touba Mbacke def ak maam Serigne Fall Serigne bi nag comme ni ma leen ko waxoon rek yéen daan lépp lu ngeen nekk lu ñu lu ñu lu ñu noona moom nekku ca loola waaye lépp lu ngeen nekk ci lu baax ànd na ca ak yéen jox nañu bopp bi tam liggéey bi li tëwoo ci moom amul intermédiaire ñoo fi muy wax ko ni nga ko bëggee moom ndax loolu la bëgg ndax nee na yéen la fi nekkal jëwriñ ci seen biir liggéey Cheikh Rafal ak seen tubaab dong moo ko ñor te gis ne ko ci yéen yéen nag tàllal na leen loxo ngeen ànd ak moom te mu ngi leen ciy gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ndax li tax mu mën a seere mu nekk sori na ca tool ya kaw sara fa mu nekk sori na ca tool ya fii laay wootee yéen ñëpp ngeen bàyyi seen yitte ànd ak man bu ñu yeggee ci liggéey ba kenn du leen ca man mu góor ñi ak jigéen ñi kenn du leen ca man muy wittum sot mu góob muy lu mu doon ngeen ànd koog moom ànd koog loolu am nañ ca tawfeex am nañ ca sant waaye yaakaar naa ne waa ji baax ku liggéey da nga yokku te ku gis jotaay bi xam ne yokku tam na te du gën deltu ginnaaw mukk nag te kanam ca kaw rek. ñuy jëw yi nga xam si ñoo nekk suñu diggante suñu bëtam si loolu seere nan ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfeex lépp bu bëgg ci liggéey bii fi ngeen ko bëgg a yeggale yàlla ngeen moom ci jàmm salaam yàlla bu ngeen ci fakkas talu yàlla bu ngeen ci amul gog ci barke sëñ Cheikhouna Fall barke Baye Lam loolu rek lañ ci amal ñoom ci doon sànni lu ci rëq ci man la rëqi waaye sëñ bi moom kàddoom yëpp mat na waaw sëñ ko bëgg a waxee lépp mat na ñun nag ñoo mënta wax ay dong rek lañu nit ñi nga xam si ñoo dëkkee ñu ci koñ bee tam rafet nañu si yëpp ànd ndax yéen ñii su ngeen nekkee ci leneen lu neexut yàlla kenn du ngeen fi gis ñun ak taalibe rek moo la ñor ñoom ci la ñuy ànd ak mbooloo mi yéen nag fi ngeen teg seen tànk bu leen ko teggi am ngeen ab yar am ngeen i teggin am ngeen diine am ngeen lislaam man xam naa ci dara ndax nit ki boo nekkee say mag ak say baay jox leen cër jox leen gëdd seen gëdd. teg leen fa nga leen war a teg lépp mat na ca loolu doxal ngeen ko kon yal na leen fay yàlla bàyyi yal na leen sëriñ Tuubaa Ngone Sene Fall saxal ci liggéey bii dafa leen mbir mu jub aajo faji sëriñ wax dëgg yàlla loxoom ci ñun ñaanam ci ñun ab soññeem jugut ci ñun suñu xol sedd na yi ñoo ngi lay yëpp jëm moom itam ak cant bu baax baax baax ci moom ndax wax dëgg yàlla suñu xol sedd na yi suñu yaakaar dooloo ko na ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa lépp lu bëgg a liggéeyal maam ja mu defee ko mu kawe bootam dama am ko moom jërëjëf soxna Seck mu ngi ñu ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa eh, yéen itam suñu borom yàggal leen ba suñu kanam ñu yàgg leen eh, saa bu ñu gëstoo gis doxin gën a ñu gën a farlu suñu doxin waaw kon ni ko ñeneen ñi defee ndax si jafe-jafe tax nga koy wax dëgg yàlla kilifa yi nekk ci kon bi yëpp ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm suñu baay ceer mu jaay léegi ñu jógee kon bu ko defee ñu jox aussi moom itam mosaan ci wax ndax moom dañuy am mbooloo mu bàkk moo xam si ku wax rek yóbbaale ñu ci la ñu ci la ñu waxee kon ñu ngi ñu ko seex waxee rek ngi sant ñëpp di di baalu ak ñëpp ndax maanaam am na coono tuuti waaye ñu ngi jégalu ñëpp waaye ñu ngi ñaanal bàyyi seen mbay mi moom it suñu borom gën koo taxawu gën koo jàppale ndax day mag moo si mag mu matoroy la ndax néewul mu mag ba ni du ànd waaye xewul gone ba nit du ànd ak ku jóg si liggéey Serigne Touba fekk ka ca ku dem fekk ka ca ku dem bàyyi ka ca. liggéey ak maam si ak so dama naan liggéey sëriñ Touba ndax fii yëpp rek sëriñ Touba moom bu nekkee ne maam si xam ne kon sëriñ li mu si yoon wi yàlla nañu ko suñu borom defal lii nag ñuy sos di ko def yàgg na ndax bu ma fàttalikoo ñu ngi ko sosoon le 7 août 2013 le 7 août 2013 ba léegi yaakaar naa kookal ki ñu ngi si 7 kon bu fekkoon ne ay caaxaan la. wala boog dañ ciy def nag su noonu wala boog ñu ngi nekk ci loo xam si ñeexul borom dëkk bi borom dëkk bee koy njëkk a tasal boppam ndax borom dëkk bi moom fii kenn dafa nekk di caaxaan te ñi si mel ngaa ko commencé muy seex muy mbay njaay muy keneen ak keneen ñu doxuñu ay caaxaan te cooxal nañu suñu borom kàttanal ba liggéey bii ñuy def si barket borom Touba ci barket borom daar mu nam suñu borom yóbbu ñu ko fu kawe su njort maa ngi jéggalu nag xam naa làmmiñ moom moom lott ci wax responsable politique APR léeg-léeg ñu ne ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax ne gis nañ jàppale bu baax a baax a baax ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ci dugub bi soxna Khady Baara Jigéen responsable politique APR léeg-léeg teew na bi ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm Serigne Dame Diop ministre d'emploi de la région de Diourbel léeg-léeg ñëw na ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm. Serigne Mor Gueye responsable bureautique APR lettre am ñu wax ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm soxna Maam Mati Bousso responsable bureautique APR lettre am ñëw na ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Serigne Deme responsable bureautique ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm ak seen kër Sarr seen yëkkat teew na te sant bu baax di leen gërëm sëriñ na koy sant baax a baax te ko gërëm sëriñ Dame Ndiaye leetaram na fi ñu koy sant sëriñ Thierno Diop leetaram teew na koy sant bu baax a baax te ko koy sant bu baax Serigne Mor Diop Diouf lettre na ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm Serigne Thierno Dieng lettre am teew na fi ñu ngi koy sant bu baax a baax te ko gërëm Serigne Mbaye Ba lettre am na fi ñu ngi koy bu baax a baax te di ko gërëm Serigne Nasser Gueye lettre am teew na fi ñu ngi sant bu baax a baax te di ko gërëm Serigne Bassirou Dieng lettre am teew sant bu baax a baax te di ko gërëm Serigne Dame Gueye leetaram teew na fi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëriñ Naar leetaram teew na fi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëriñ Moustapha Ndiaye na fi ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm xalifa sëriñ sëriñ Xaali Ndiaye Diourbel sëriñ Demba Cissé leetaram teew na fi ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm sëriñ Yahya Bousso leetaram teew na fi ñu ngi bu baax di ko gërëm Serigne Baye Serigne Ndiaye leetaram teew na fi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Serigne Cheikh Ndiaye leetaram teew na fi ñu ngi koy sant bu a baax di ko gërëm Serigne Fallou Seck na fi ñu ngi bu baax a baax ko gërëm Serigne Lamine Cissé ak ñoom moo àndal ñëpp na ñu leen di sant bu baax di ko gërëm Serigne Gandoo leetaram teew na ñu ngi koy sant bu baax na baax te di ko gërëm